dafa dafa dafa am ñaari fait politique yoo xam ne sa euh, fait peur euh, maanaam euh, un maire euh, aussi bien nul qu'il soit wala noo mënta sentir sa bopp comme le maître du du du du du du, du nga nekk foofu Benno Bokk Yaa nga nekk Kaffrine bu régner en maître mais yow si tamit citoyen nga droit bi nga fa am loolu la fa Ousmane Sonko am loolu fa Bougane Gueye Dany am euh, fan nga teg euh, des hommes politiques di ñëw un homme politique bëgg a sa commune nga def une mobilisation pour en sa marche muy Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany ñëw dugg bëgg a def politique am ñu yónni ay nit ñu ñu ñu attaquer son son cortège te ci ñaari mbir yi yëpp yow la ñu joxoñ baaraam Bougane Gueye dane nee nañu même des gens de Kaffrine nee nañu yow yaa yónni say xale pour que ñu attaquer cortège am est-ce que dérive yi ngay accuser opposition bi est-ce que yow tamit nekkoo di dugg ci porox ndoll boobu. waaw mais d'abord ma ma ma rectifier moi je suis pas le maître du Ndoukoumane je le maire de Kaffrine man utuma nekk maître dara man doomu Kaffrine laa di tiitaroo li ma nekk doomu Kaffrine maire Kaffrine ñu dénk ma ko ci ay responsabilité yu rafet yu anam yu rafet ma mbër koo sàmm man defuma dara lu nit di wax yëpp c'est la première fois ma am occasion ma wax ci. defoo ko déglu rek boo xam nga may ma ne booy poser question nee naa teg déglu la parce que dama bëgg xam ne tous les tenants de votre question un Ousmane Sonko annoncé na ni xam nga jógee Ziguinchor ñëw ñëw ñëw ñëw dakaar ci ñaari yoon la gën a yombee jël avion ou nga jaar ci Gambie gi nga ñëw fii mu décidé. en toute illégalité convoi lay def caravane lay def mu jaaree Ziguinchor jógee Kolda jaar Vélingara jaar Tamba mais il est déglu rek mais attendez attendez caravane aussi dafa am nu ñu koy réglementer on n'est pas en campagne électorale on pas en campagne électorale te boo ko war a def war a c'est soumis à à des obligations te fu mu jaar yëpp mu samp fa dëj man ma nekk maire Kaffrine nga bëgg ma bàyyi ma bàyyi ko ma ñëw ñu ñëw taxaw ñu bàyyi noonu après am incident am moor moor bi su ma su ma moor lay nekk man maay dem dëj man maay di taxaw ma seetaan man je fais de la politique ci di di aux population bu ko kenn gaañ bu kenn dor mais ñu taxaw fii dëkk bi bu leen ko bàyyiwul mu def sa marche normalement moi je n'ai pas caché am affrontement. mais mais ma ne fépp fu mu jaar kan moo fa indi affrontement yi. ba pare dañoo nekk ci réew bu nga xam dafa am loi et règlement maire au-delà de la fonction d'élu c'est aussi un agent de l'État. vous n'avez pas dama am responsabilité aussi dama am responsabilité aussi damay am responsabilité aussi dans la préservation de l'ordre public xam nga dégg naa Ousmane Sonko tudd ma nag mu ne dañ ma cee euh, dañoo njort njort mën nañ mën nañ mën nañ moo njort mën nañ laqatu lépp mu ne mu ne man autorisé nañ ma may def su may caravane ci biir Kaffrine te kenn waxut awma autorisation loolu du dëgg waa Kaffrine ngi may dégg defuma benn caravane ci biir Kaffrine dañoo jël ay comme comme lu ñu mën a manipuler toujours jël une photo de mars de mai 2021 mai 2021 bi fa président de la république ñëw di inaugurer hôpital bi may dem di seeti site yu ñu taxawoon mobiliser yëpp ma dem leen nuyu photo boobu la ñu wane ñu ne Ablaye Sow mu ngi def caravane ci biir Kaffrine ce n'est pas vrai c'est la première fois ma ma mën cee ce n'est pas vrai. alors si man li ma am eh, eh, loolu déglu ma ma week-end may mu ne ba ma bàyyee nga bàyyi ma ak ah, suma sago ma tontu la ba mu leer dañoo wax moom ci boppam mu ne dañ maa bàyyi may def suma caravane te kenn autorisé wu ma loolu du dëgg parce que man quand même am naa minimum de connaissance en matière d'administration donc li am wax naa la ko ma jógee Maabo Maabo final moo fa amoon ministre Doudou Ka mu may dëgg maa moom ñëpp man sax moom laa gunge woon mu nekk parrain ci biir commune de Maabo su ma jógee du ma ñibbi su ma ñëwee du ma dem suma mairie image boobu rek la ñu wane su ma demee du ma dugg suma ma suma ma mairie xale yi taxaw du ma wax ak ñoom loolu laa def y' a chose beneen bi muy bugg an bugguma koo tudd sax parce que man jombal naa sama bopp yenn yi man nee naa man je un pur produit rappelé waat encore de la république de la démocratie xam naa njëg bu ñu fay ba démocratie àgg fii xam naa fekkee naa. bi sénégalais di voté cent carte d'identité fekke naa buy sénégalais yi ñu ñuy bu ñuy xeex pour que isoloir am ci élection yi fekke naa bu ñuy xeex di jël âge 21 ans yu bu ko 18 ans xeex bu mënta xeex rek xeex nañ ko fii pour àgg à ce niveau donc man am na am na nekkuma ci man maa ngi nekk suma conférence de presse ci lañ ma ko yégalee nga bëgg maa njort loolu neex nañ njortu loolu neex nañ njort man man yàgg naa ci réew bi kenn mësuma xamal yooyu kenn musuma gàkkal. ci xale yi dem attaquer le cortège de Bougane. mais ils n'ont pas agi sous com sur commande. mais jamais de la vous savez moi. donc xale yi daal dañoo mobiliser. tu si je devais commander tu sais si je commander su may ma ne vous me connaissez suffisamment. xam nga ni man bu doon assumer responsabilité dama ko assumer amul kenn ku am ci ma ci réew mi. Moi, surtout fi nga xam ne c'est des gens qui sont à la recherche du buzz moi vraiment je ne pas nag. nga ñëw ci ab bureau bi du buzz qui a eu deux cent vingt deux mille voix. lors nga naan à la recherche du buzz vingt deux cent son mouvement. mais arrêtez arrêtez a enregistré deux cent vingt deux mille voix. à récépissé à récépissé ah. ñun non militant non responsable ab nañ sa récépissé mu jox leen un locataire de récépissé la nga bëgg. quand même. <laughs> ma ne ils sont partis sous la bannière gëm sa bopp. mais c'est de gëm sa bopp pour un mouvement. Euh, les quatre vingt pour cent à deux cent vingt gëm sa bopp la gis. mais bi xam ah. man mën naa la jox exemple. yu bëree bëri bëri yu nga xam ne suñu biir département de Kaffrine biir région de Kaffrine des gens qui étaient avec la liste mais qui sont de notre parti et qui ont rejoint immédiatement après notre parti loolu y a pas problème moi je pas à ce niveau. niveau boobu nekkuma ci gis nga affaire niveau politique Sénégal dafa c'est sérieux on doit le on doit le confier pas à des plaisantins il faut sérieux et qu'on ñu nekk di ay joueurs ak ay fookat de ut buzz cinéma def cinéma booy wër nga indi dix mille quatre quatre nga taxaw cinéma ça c'est du ça c'est du zéro il faut que les gens sachent réew mi ñoo ko bokk te réew mi dañu ko respecter mënoo ñëw réew fu la neex nga def lu la neex et après tu sèmes le désordre et tu t'en ah non moi il y a des responsabilités qui sont les miennes je vais les assumer. et c'est pourquoi ma profité ci kontaan ci xale yi Kaffrine de manière générale je les félicite je les encourage pour leur combativité pour leur sens de responsabilité taxaw parce que réew mi du ñu bàyyi ñuy liggéey tous les jours di ñëfe pour que mbir mi avancé ay saboteurs bëgg bëgg a yàq. alors